asalaamaaleykum ñu leen di di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax euh, ñuy bëgg a wax rek ci euh, meeting bi nga xamante ni mooy meeting d'investiture bu amoon démb ci terrain xaar yàlla bu Dakar di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom yi nga xam ne def nañ euh, une fort mobilisation ñëw uy si ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz ak coalition bi nga xam ne moom mooy yeewi askan wi di coalition bi nga xamante ni mooy coalition bu baax bi. La coalition la coalition du changement di coalition la coalition de l'espoir Nous sénégalais pour apporter un véritable changement donc Barthélémy Diaz le candidat coalition qui est ci mairie Dakar Nous avons Yakar na Dakar parce que Dakar dafa am injustice qui Nous sous Macky Sall parce que tant nañ ki nga xamné mom moom lañ gën bëgg defon ko sen maire en 2009 sous la bannière de Benno Sigil Sénégal muy Khalifa Sall 2014 mu ñëw sous la bannière de Taxaw Dakarou ñu joxat ko maire maire bi mu am ñaari mandat ba pare liggéey Dakar amone un bon programme malheureusement ñu am un président bo xamné mom le Sénégal intéressé waa Ndakaaru intéressé wuñ ko mais lu intéressé moy politique politicienne li intéressé moy fay wante moy jaay doole moy jéem a toroxal nit daf ci bopam tamit ne ñëpp dañoo wara and ak mom Khalifa Sall bañ na duma and ak yow mu koy xex ba à la fin fu mu mujjé moy yónnee ko IGE inspection générale d'État ngir mu dam euh contrôler ko té ñoñu biñu contrôler ba paré dañu né nañ xolat caisse d'avance bi ni ñu koy doxalé ba paré félicité Khalifa Sall ci liggéey bu rafet bu muy liggéey té ba légui léegi guñu rapport bobu teg ko ci table bi pour nit ñi gis ko pour sénégalais yi gis ko pour publier ko sénégalais yi mën gis liggéey bu rafet bi nga xam Khalifa Sall mu ko doon liggéey ak félicitations yi nga xamanteni wa IGE di inspection générale d'État félicité nañ ko ki nga xam moy Khalifa Sall mais gis na daf ci profito jox ko procureur am bi ñu japp Khalifa Sall nek magam jëm nga xam ne bi muy dugg ci politique bobu Macky Sall mëna lycée ba muy nekk député bobu Macky Sall euh xalé bu ndaw la donc nek ko xam ne am expérience ci politique nek kilifa mu ñew xaw yi suturaam te kooku jàppale na ko en 2012 mu ñew parce que àndut ak mom parce que PS bu ñu bëgg a ci Benno Bokk yaakar mu baña amati benn ambition pour baña a ci euh, type d'élection yi am lolu mom moko neexul mu ber daara bopam te lolu am ci droit waajal nako lolu du fi amé jaay ko doole avec la complicité de la justice ñu tëj ko kaso toroxal ko yàq dërëm jiñ ko fi 1 milliard 800 millions ci ay fen ba pare toog ba mu neex ko ba élection présidentielle yi passé parce que xamoon na ne waa daf koy sonal ci ndakaaru te bu ko sonalee ci ndakaaru Dakar population sénégalaise bi presque xaaj bi yëpp fa lañ nekk Dakar moo gën a peuplé ci Sénégal te ñooñu bu ñu votalee Khalifa Sall moom par force dina dem deuxième tour te boobu moom bëggutoon deuxième tour parce que xam na boppam mu jël élection yi tripartie ko def lu ko neex ay résultats préfabriqués jaay nit éliminer par parrainage xam nga ñi mu tej leen kasso exilé Karim Wade def lu ko neex di n'importe quoi sénégalais y tok di ko mu def lu ko neex confisque résultat aux élections yi gagné ko ak ay complice tok nak continuer ne day jaay nit ñi di menacer nit ñi gaay mi di dem ci télé di di def lu len neex dara du len ci fekk donc kon wa Dakar injustice bobu ngeen dundou il faut ngeen réparer ko fan ngeen koy réparer ci Khalifa Sall ci ci ci Barthélemy Diaz autant pour moi fal len Barthélemy Diaz c'est un travailleur c'est un patriote il est constant ni mu mel jafe na ci politicien yi légui dé politicien yi bëri gëmuñ dara fu mu ni. nii ku ci Macky Sall o ñu bëri dañuy dem. ñu fi doon sàgg Macky Sall bëkki démb ak démb ak ñi ko doon xeex ba mu nekkee parti démocratique sénégalais ñoo dem wër ko nii tey ñoom ñëpp a ngi ànd ak moom tey am na benn ndaw soo xamante ni moo xalifa Sall ak Barthélemy Diaz nii ñoo bokkoon lu ñu gëm ba génn parti socialiste moo dañoo waxoon ne kenn du seeyal parti socialiste ci Benno Bokk Yaakaar muy Aïssata Tall Sall ana mu fan la mujjee ba mu fi créé Osez Avenir fu mu mujjee peur de l' dem nañu jokko ministère euh, des affaires étrangères ma nga noppi na muut kenn déggatu ko lam doon kaas démb ak bëcc démb kenn déggatu ko mu wax Barthélemy Diaz mi problème bi mu amoon ak Ndiaga Diouf moom bokkoon na ci avocat yi doon défendre Barthélemy Diaz taxaw yore rajo yi di wax di kaas même Macky Sall moom <laughs> bësam defe naa ne leer na moom it demoon na di ko soutenir te dossier boobu tey moom lañ jël daf ko épée de Damoclès di ko xeexaatee pour jëm a sagaagal euh, Barthélemy Diaz waaye loolu kenn ko nangu ñoom xam nañ loolu parce que gars yi tiré nañ laa sonnette d'alarme avertir nañ leen wan leen ne leen carrément Ousmane Sonko kenn du ko laal Barthélémy Dias kenn du ko laal parce que dañ leen a yaakaar ñu bëri wor nañ war nañ ñu ñun ñun kan lañ deseet Khalifa Sall tamit gis nga ndeysaan waa ji toroxal na ko ba mu na tot ba pare euh, rendre ko inéligible kenn mënatu ko fal vote vote sax mënu ko ci nit koo xamante nii yow sénégalais la comme yow am ay ambition am ci droit comme yow nga ne yow yaay président de la république nga yak àddunaam yàqate ko jaxase xam nga toroxal ko pour lan parce que yow yaay président de la république nga foog ne dina la jik am ay naafeq yu nek Sénégal di la si jàppale lepp lo def ñu koy cautionné nan loolu neex na len nit kuy togn ngeen taxaw naan kii tooñam mi mi togn neex nañ xam nga ne loolu ku koy def naafeq nga man képp ku may manti andal ci aduna mo xam sama mag nga mo xam sama xarit nga sama cousin sama yaay ak sama papa sax bés bu ñu defee lu ñu war a def dinaa taxaw wax leen dëgg parce que àdduna noonu la nit booy ànd ak moom da ngay waxanteeg moom dëgg ànd ak moom ci ragal yàlla wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan loolu la yàlla wax da ngeen di ànd ci dimbalante ak ragal yàlla te dimbalante ak ragal yàlla mante weesu nit ngay ànd ak moom loo ko bëgg-bëgg bu defee lu mu war a def nga taxaw ak moom am courage parce que du yàlla du yonent bi nga ne ko li ngay def tegoo ko fenn da bàyyi tooñ mais Sénégal la ñuy gis benn président bu gaddu yatam di dóore di dóor ay nit bu nit ñi taxawee ne dañuy résister ñu ne leen yéen da ngeen a fitna bàyyi leen fitna bàyyi leen xeex léegi kuy dóore mom kenn du ko wax dara parce que mom moy président de la république parce que mooy signé décret yi parce que moo yéré avantage yi ak privilège mané buñu bëggé réew mi avancer nañu bàyyi naa fekk tay waxante dëgg Ousmane Sonko démb lu mu wax dama ci and ak mom 100% xam naa nag ñëpp dinañ génnati dafa bëgg dafa bëri fitna te ndeysaan mosu ñoo gis waa ji dem fekk ay nit attaqué leen mosu ñoo gis waa ji saaga nit mosu ñoo gis waa ji euh, attaqué Macky sàll ci fameem tudd vie privée mais ñoom ñooy def loolu ñoom. léegi su fekkee ne Ousmane Sonko nag dañoo ñëw di dal ci kawam mu résister pour fayu ñu ne ko yow nitu fitna nga moom ñu àndal kel naa fekk. man dama jaxle ci réew mi sama réew man xamatuma ban façon réew laa nekk fu mu nekk nii nee dañuy def benn xawma ak comité boo xam ne dañuy def dañuy signé ay charte pour non violence Ousmane Sonko ne man signé wu ma benn charte pour euh, pour la non violence parce que man je suis pas violent Ousmane Sonko kan la ma sa attaqué événement yu fi am yëpp ba ay nit dee ci kan moo créé événement yooyu noonu kan moo provoqué yow loolu kan la fan la jóge su dee sa affaire u Sarr fi fan la jógee. ay saay-saay ay woyu ay bandi yoo xam ne c'est des voleurs sàcc xaalisu sénégalais yi ñu Ousmane Sonko génn na leen da ngeen a sàcc xaalisu sénégalais yi ñu ne ñuy venger wu dem jël benn xale bu jigéen dem utiliser ko ba Sénégal tàkk ci ay fen sénégalais yëpp xam ne ay fen la ñu génn jàppale Ousmane Sonko fukki nit ak ñeenti dee ci ubbiwuñ ci enquête jël seen ay nervi dugal ci biir manifestant yi di dóor manifestant yi di leen toroxal gendarmerie ak police toog seetaan defuñ ci dara kan moo indi violence boobu noonu est-ce que vous instrumentalisez instrumentaliser wutoon xale bu est-ce que vous événement dina est-ce que vous avez Ousmane Sonko comme opposant il ne fait que son rôle est-ce que kon avez dina am lan moo Ousmane Sonko toog di viol deram ba paré dem ko ci ba ba ñu dem teud ci sen kër ak ay ay climatiseur di léegi baye jambour gi nga xamné mom sénégalais la am ay droit am ambition pour nek président sénégalais ay nit am ci mom yakar nga yow légui dama lay japp ci ay fen tëj la kasso toroxal la ba paré fenal la yak sa dar ci Sénégal légui yow da ngay toog di sétane légui ay nit taxaw na ñom ki ñuy tek coono yoy non ak ki ñuy togn non pour toroxal ko pour yàq àddunaam kooku mom mom moy ku bon ki mom mo beuri histoire yéen seetaat leen seen bopp yéen tamit Sénégal yenn ñii àdduna jaru ko gis nga dëgg dafa neex wallahi wax dëgg dafa neex te gis nga man man amul kenn ku ma jaral man ay jayaate wala topp doomu aadama man lépp lu may am ci sama àdduna dama koy bëgg a dama koy ñàq pour ñafel ko sama bopp mu tuuti ak mu bëri lu ma jox ma xam ne loolu la mais amul kenn ku ma jaral ma lay dunguru di la wax ne la Euh, yàlla mu ngi lay nuyu te gisuma yàlla wala ngay nga ñu ne yow président de la république nga wala ministre nga wala da ngaa siiw ma ñëw loo def ma ne baax na kenn amul maxaama boobu amul kenn ku am maxaama boobu ci àdduna du président du buur man soo may rey sax rey ma ci dëgg am nga mais nit koo xam ne chaque jour mooy provoquer nit ñi di dem ay tournée économique soit disant tournée économique di yóbbaale ay nerveux ku takk morceau bu xonq nerveux yi ñëw dal sa kaw. bu nit ñi di riposte ñu ne leen yéen da ngeen a bëri histoire da ngeen a fitna bàyyi leen coow li ay signé leen ay euh, charte boo xamante ni charte non violence la te yow nga gis ki nga xam ne moom mooy indi violence bi yow kañ li gën a yomb mooy ki nga xam ne moom mooy yore yat bi di dóore nga am courage jàkkaaroo moom ne ko eh bàyyil tooñ bàyyil sa dóore yi fii la fi convoqué Barthélemy Diaz politiquement ba ko sànq le 10 bii passé mu dem di uji ñu génnee gendarmerie GIGN ak waa BIP ñu nek ci mbedd mi di koj nit ñi di leen door ay grenade ay kilifa kan mo indi violence est-ce que grenade lacrymogène yi ñu fa taal jaron nako grenade yi xam suñu ñu koy l'argent du contribuable ay nit yu and ak euh dirigeant sen leader di dem di tribunal pacifiquement di nga créer ay tension dóor ay grenade lacrymogène ñëw ba tiim leen di leen dóor ay grenade lacrymogène est-ce que boo leen bàyyi woon ñoom ñu dem tribunal directement problème dina am da leen di encadrer ñu dem directement kon kan moo indi violence bi foofu kan moo fi nekk di interdire ay marche ku bëgg a marche ñu ne la doo fi marche Barthélemy Diaz nekk maire Mermoz Sacré-Cœur nekk candidat Yewwi Askan Wi ci maire bu Dakar génn di doxantu di saafantoo ak ay militants ñu ne ko doo fi génn di doxantu benn commissaire de rien du tout nga xamante ni ci commune Sacré-Cœur sax moom ci la ci la ci la rattaché wu ah. parce que police jëppal moom moo yore Sacré-Cœur ak Mermoz yëpp Mermoz ak Sacré-Cœur amul commissariat amul sax poste de police yow kooku seen maire ba nga koy toroxal nga xam ne waa Sacré-Cœur ak waa Mermoz ñoom ñoo dem fal ko ne ko kii mooy suñu maire mu nekk premier magistrat de la ville boobu noonu ci ville yooyu noonu ñaari communes yooyu hmm. léegi nga ñëw yow commissaire jàpp ko parce que jot nga ay instruction ci Antoine Diome poñe ko sànni ci oto bi yóbbu commissariat ne da koy dugal ci ay violon di jaay ñàkk teggin ah mais loolu soo ko defee ay militants yam jóg songu commissariat ba xeex ak policiers yi taal ko kan moo euh, provoqué problème boobu noonu parce que kooku nekkul ku ndaw kilifa la maire la dañ ko fal ba pare lu muy def mu am ci droit même bu nekk ton maire man nii tey am naa droit génn Dakar di doxantu di xooli sama ay nit Barthélémy Dias bëgg jàmm moo tax bi biñ ko waxee ne ko doo fi def caravane bala ngaa def caravane da ngay dem ut autorisation wala nga def declaration ci préfet mu ne léegi man defu defuma caravane damay wàcc dox ñu ne ko doo fi wàcc doxe léegi su riposte ñu ne ko nitu fitna ko dangaa bëri histoire léegi kiy joxe instruction moom ca bureau ba toog muy Antoine Dion, nga xam daf lu bon rek la Sénégal sal boulot rek la xam waaw fi la fi nekk substitut procureur ci ba Wade waaw bu fa lan lañ ko def bu fa lan la dem ji agence judiciaire de l'État bu mu fa ñu récompenser bimu mu agence judiciaire de l'État sax Khalifa Sall la attaqué parce que moom moo jël rapport bi dem yobou ko ci procureur ne Khalifa Sall dafa sàcc xaalis Sénégal nañ ko top bi Khalifa Sall daano mu récompenser ko yobou ko ministère de l'intérieur pour mu daaneel wa Pastef waaye Pastef ñoko te ba légui ni parce que bimu mu lu mu njëkk a def Pastef dañoo commencé def sen ay collecte de fonds ay levée de fonds rek mu commencé di nappaate communiquer communiqué da fay dissoudre parti bi. ce même Antoine diom bobu nonou moo jox instruction administration territoriale bi muy préfet yi ak sous préfet yi wax len na len nañuy cibler liste yeewi askan bi pour di leen rejeter ci yenn deuk yi nek biir Sénégal mais lolu est-ce que ku bëgg jàmm dina def lolu kon kañ ñi bëgguñ jàmm rejeter nañ wa Matam gannaaw buñu instrumentaliser ki nga xamné mom moy Jibi Ngom mu dem infiltré waa Yewwi Askan Wi nek sen mandataire jour bi mu waroon a demul daw ak liste yewi bi pour ñu pour <laughs> pour ñu forclo mais ñoñu bu ñu demee cour d'appel bu Saint-Louis dañ leen jox deug waa Yewwi bu Matam ñu daf ko waa Yewwi bu Mbour rejeté leen te teguñ ko fenn ñoñu tamit dem coup d'appel bu Thiès ñu jox leen deug Antoine Diom gisaat préfet yoy non ak sous-préfet yi ne leen dem leen euh, cour suprême a def recours est-ce que vous na jamm? kon kon kon réseau yoy vous kon xana kon du du du nen kon kon ko kon kon ko parce que jaral na mu wax préfet cour suprême kon bëggul jamm, vous lutax que indi ministère de l'intérieur pour toroxal ay nit pour éliminer ay nit Sénégalais duñ ko nangu mu la même chose préfet ba fa ñu jox ko instruction na ko rejeté liste euh, yeewi bi foofu nga xam ne Guirassy moo ko am expérience bu mag a mag a mag a mag nekk ministre sous Abdoulaye Wade nekk député nekk maire ñu ne ko yow sa liste bi baaxul rejeté ko mais xanaa yow boo bëggee jàmm sax nit lépp lu ñuy déposé ci administration yi nekk ci àdduna bi yëpp bu erreur amee dañu naan dama nga rectifier erreur bi nga ñëw déposé waat mais mu ñëw di wax ak ñoom ñu dóor ay grenade lacrymogène ci kawam waa dëkk ba jóg yow dëkk boo xam ne Moustapha Guirassy moo fa nekk maire moom lañ bëgg nga ne yow ki ñu choisir ne moom lañ bëgg mu nekk seen maire nga ne du fa nekkee maire da nga koy rejeter pour lan kokkañ bu coow amé bu violence amee mais yow a indi violence bi fof légui ñu bëgg ñu wax nañu légui dañuy signer ay charte pour non violence té xam violence bi fan lay joggé ñan ñoy provoquer violence bi Ousmane Sonko xalé yi dañoo am ci mom yaakar tooñul kenn waxul kenn lu ñaaw deful kenn lu ñaaw sagawul kenn au contraire yéen yéenay saga. ay ministre de la république lañuy jël di leen inviter ci télé yi ci plateau yi ñuy toog di saaga Ousmane Sonko te am leneen loo xamante ni waroon nañ ko wax luñ leen dénk nañ fexe nan lañ koy lijjantee mais yow dañ lay dénk benn ministère au lieu que nga lijjanti sa ministère boobu noonu nan ngay def ba def ay résultats yu baax ci ministère boobu ñu la dénk boo ñëwee ci plateau télévisé yi saaga Ousmane Sonko nga fay nekkee fay ay nit ay journaliste ñu nekk ci télé yi di saaga journaux yi di def à la une yoo xamante ni pour mettre en mal Ousmane Sonko ak peuple sénégalais bi. am seen ay soi-disant activiste ñuy dem di attaquer les vrais journalistes les journalistes dignes ku ci mel ni booy Abou Diallo xaw ma booy boobu ñu ne activiste la mais c'est un activiste de Macky Sall moom day dem xool ñi nga xamante ni ñoo gën a sonal Macky Sall gën a mën a wax dëgg gën digne muy journalistes yi ku ci mel Pape Alé Niang Serigne Saliou Gueye nga xam ils sont dignes kenn mënu leen a jënd kenn mënu leen corrompre dañoo garder seen dignité ñooñu lay attaquer ak kan. ak Guy Marius Sagna nga xamante ni kenn amut lu mu ko wax kooku maanaam kenn amut lu mu ko wax ci wàllu patriotisme du ci moroomu kenn ci wàllu xeex ak ak yelleefu doomi aadama ak démocratie bi jëm kanam Guy Marius Sagna tolloowu ca kenn ñaata yoon la dem kaso ñooñu lay attaqué ak Dame Mbodj <laughs> ñooñu lay attaqué mu wër ne kon kii dañ ko ngemb ne ko demal di attaqué ñooñu nga xam ne ay waxkatu dëgg lañ nga xam ne ñoom ils sont du côté du peuple di défendre peuple bi seen journaliste yi ñaata journaux léegi journaux pour lire ko sax problème la amul benn journal bu crédible wala bu amee bëriwul événement day am ñu génn jaxase xel yi wax ay wax yoo xam ne Ousmane Sonko ak un euh, bi ñu àndee di uy ñu naan euh, Diaz ak Ousmane Sonko dañoo oote deuxième vague waaye xale yi uy si quoi xam nga ay Moussa Fall réussi son pari xam nga. genre yooyu ay wax yoo xam ne mel ni ñoom dañoo oote na ñëw leen ñu taal dëkk bi di jaxase nit ñi ah am un journaliste boo xam ne kenn xamut lan lay nuru boo xoolee kanam yi xam ne yàlla daf ko alak parce que amul benn leer amul benn mahabba kenn du ko gis ba bëgg ko muy Madiambal Diagne ñuul kuk di nuroog baabun yow nga nga ne yow tu es un grand journaliste nga téye benn opposant ciblé ko chaque jour nga koy saaga xam nga di yàq deram te kooku yore njaboot comme yow te loolu kilo ko sant mooy Macky Sall ah. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëri na bëri nañ kullim da ngay juum foo dem di nga fa fekk ñoo xam ne chaque jour suba ngoon guddeeg bëccëg saaga Ousmane Sonko créé seen benn jigéen bu ñuy wax Gabriel kan xaw ma ñu ne féministe la jël ko muy dem ci plateau télévisé yi di saaga Ousmane Sonko chaque jour muy collé turu Sonko ak Adji Sarr xam nga ak ak yeneen nit ñoo xam ne ni tey ñu ngi leen jël tey ñu ne ñoom <laughs> ñoom ñooy jàppale Adji Sarr quoi mooy avocat rek ngay ndeysaan man aw ma sax lu ma ko wax parce que moom xam nga voilà <laughs> dafa am lu ñu lié ko moo tax du ma ko mën a wax dara mais xool ko tey jii buñ ko invité buy wax ci Ousmane Sonko day mel ni koo xam ne xol bi day bax ba muy bëgg a daanu mel ni ku bëgg kuy waaj a am crise cardiaque ndax bañ nit ki pour lan te nit kooku ngay jéem a bañ yow ko muy gën a avancé nit ñaa ngi koy gën a bëgg ba ci problème mu euh, Miss Sénégal bi mooy Fatim Ndion ah rek jël nañ ko fi bëgg ko kole ak affaire u Adji Sarr ba génnee Adji Sarr ne ko waxal nga félicité nga nga nga compatir ak ndaw si wan ko ne ko maa ngi lay jàppale li la dal moo ma dal lan moo tax ma ne ñii bëgguñ jàmm bëgguñ jàmm parce que duñ bàyyi ba léegi bàyyeeguñ xale bi dañ ko téye en otage lu xew ñu génnee ko ne ko defal vidéo te bu génnee ay saaga ndey ko ciy fekk ak ay wax yu ñaaw ñi ko instrumentaliser tamit loolu moo leen ciy fekk ñu ne ñoom duñ noppalu avec ça ngeen nous bëgg ngeen dëkk bi am jamm yeen su ngeen dëkk bi am ay toujours ñuy continuer ah di instrumentaliser xalé bi en otage lu xew ñu ci lu xew ñu jël ay nit dem inviter site internet presse en ligne bi euh, télévision classique yi si yenn plateau yi ñu dem di Ousmane Sonko Ousmane Sonko loolu Sénégalais yi ko mu justice populaire hein. ñu lepp ay fen la te ñoom nee duñu bàyyi kon jàmm ji ci loxo Macky Sall la nekk te bëggul jàmm kon Ousmane Sonko amul benn charte bi nga xamanteni na dina daf koy signer pour non violence man je suis parfaitement d'accord avec lui entièrement d'accord à mille pour cent signer dara parce que mom il n'est pas violent wayé nak gadul tok di sétane ñu ñëw diko attaquer diko ko mu tok di sétane man de kuma dab ci mbedd ne danga may agressé wallahi boo ma mënee di ma rey billahi wallahi wa taala dinaa jëflante ak yow ba mu saf sap mais yonent bi sallallahu alayhi wa kan moo ko gën a baax l'islam jàmm sax la ñuy nuyonte asalaamu aleykum asalaamu jàmm aleykum ci yéen l'islam diine jàmm la kook kan moo gënoon a bëgg jàmm ku ko gënoon a pacifique mais da daan toog ay nit ñëw attaqué ko mu riposté mais lan la dafa war a riposté day tok fi gis ben way bu yore yatam di doré ou lieu que ñu wax ko deug ñu naan ay bayi len fitna beek bayi len xex bi yow do dem ci ki togn na ko yaa bàyyil tooñ fii daal boo yoree nguur mom ñep do daf neex neex na nit ñi dina leer inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah